sabu bi qul min suui ma adabin sabab lu leen tabu leen mu te innahu laysa min innahu amalun kon askan amul solo askan amul solo tewaat yàlla cëram dellu siwaat teguwaat yoon yàlla waxul kenn bul wut àdduna surtout surtout surtout mbokk yi xale yi fi ñu toll dañ fexe ba di leen jox ju leew yaa ayuha nnaasu kulu mimma fi l ardi tayiban yaa ayuha alladina amanu kulu min tayibaati laa taakulu amwaalakum baynakum bil laa yatamamul xabisa minhu tunfiquuna walastum gaa ñi ne kenn du ko liggéey dañu koy bu defee nag yàlla ñu yàlla jàppale lii ñun dañ ciy bég fii bu ma fi fanaanu ba bër set fii rek la am aw ma leneen lu dul lii alxuraan toroxul kenn waxul kenn tàllalal loxo li sëriñ Babacar si wax radiallahu taala anhu ba mu ne tarku tasabbubi qul min suui ma adabin sabab lu leen tabu leen mu teg ca inna rajaa la fi waadin kada deel teg taloo doog yaakaar yow nga ni da nga koy doo ko man kaana daa xirfatin fal yuxiha moo gën sàggan dem di tuumaal yàlla mu ngay kaas bay kaas ñiy laaj droit cent cent de daru shikaayata yaa qawmi bila bila amali bu ko defee nag wax ji lu yàgg tàkkusaan jot na waaye lii daal mooy yàlla lii mooy àdduna lii mooy lépp wabtaxi fii ma aateka allahu daaral waaye wala tansa nasibaka minat kon waxul bàyyil àdduna waaw waxul bàyyil ak def ni la nga liggéey boo wàccee dem boo de boo ko toppee itam la Seydina Muhammad wax naan laysa ko man man taraka dunia li ajli al axira wala man taraka al axirata li ajli dunia bal xayruko man jamaa baynahuma mbokk yi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi jéggalu asalaamu aleykum danañ ko jox waaye nga jox ko saat si waaw kan la ci ñoom la joxe kurusam rek nga indi ko waaw waaw baax na Chérif am ah, wallahi baax na baax na baax na nañ góorgóorlu rek Sénégal jullit yi war nañu am beneen taxawaay taxawaay bi mooy ñu dellu siwaat di ay nit jot na yor jëmmi nit ak nekk nit du benn seen benn bindkat laa gis mu ne al insaniya insaniya mooy humanité nee na humanité ngi tëdd ci lalu sukuraat benn nit ñëw ni ko waaw lu xew mu ne ko ah, man de dama bëgg dem ñu ne ko lu tax mu ne alwafa u nekkatu fi li ñuy tudde kóllëre amatu fi li ñuy tudde amaana amatu fi li ñuy tudde dëggu amatu fi li ñuy tudde jikko bu rafet amatu fi kon bàyyi leen ma ma dem Serigne Cheikh Tidiane ni al aklu wa shurbu shahi bu dee lekk ak naan lu neex rek ak sol lu rafet ànd ak kala yàlla booleel di ca yëg bànneex doom di ca juddoo loolu mooy humanité boo demee ci géttu mbaam mi fekk ko fi xam nga lu ngeen ci wax nag ah? bu dee lekk ak naan rek ak sol lu rafet ànd ak kala yàlla booleel di ci yëg bànneex doom di ci juddoo lii mooy humanité boo demee ci géttu mbaam mi fekk ko kon ñu dellu siwaat teguwaat ci yoon seen maam ju baax ja nag Serigne Touba daal di ne hada zamanu aqbahu zamani ñu ne ko mbàkke lu tax mu ne li kasratil asyaani fil buldaani ñu ne ko ak lan mu ne wa kasratul jahli ma al ñu ne ko ak lan mu ne wa qillatul wafai bil amaana ñu ne ko ak lan mu ne wa qillatul xayaai fi niswaani wa qillatul xayaai fi sibyaani ñu ne ko ak lan mu ne wa qillatul axyaari wal abraari wa kasratul nifaaqi wal fujjaari bu ko defee mag ñi ñuy waxal ñëpp mag ñi bala ñuy waxal mag ñi nañu seet nañu delluwaat ci seen téere ba gis dara lu ñuy wax ñu soog koy nettali waaye di leen waxal lu ñu waxul yéen a ngi teg ñu ngi teg suñu bopp gàcce dama koy njëkkee ci seen maam Cheikh Al Hadj Malick ñu ne dafa bàyyi ba màkka màkka jeex muy aji lu mu fay wuti bëgg a yëkkati sa nit rek nga ni màkk jeex na alaaji maari ga ngay aji lu mu fay wuti alxajju ashhurun mu jeex mu ne day aji lu mu fay wuti dem bëgg bëgg jël nit ki teg ko ci teg ko ci daraja ju mu àggul mu naan dafa dem rek ah, bunt yëpp ni kulbet ubbeeku bunt yi ubbeeku lii yëpp lii yëpp Sénégal senegal léegi yàlla nañu yàlla delloo si yàlla nañu yàlla delloo si jikko yi ak yar bi na fi dellu si dañuy wax nag faaqidu shay la yu'ti nit ki mën na maye lu mu am waaye nit lu mu amul mënu ko maye yar bi na dellu siwaat mbokk yi jikko yi na dellu siwaat biti bi rafetatul ñaaw na te Sëriñ Tuubaa wax na ci waxam jooj dama ko dama ko firiwul rek waaye nee na li ko gën a jaaxal li ko gën jaaxal ci Sénégal mooy koo fi koo fi déy mu sen koo dénk mu lekk xaw ma am na fi wala déet nag koo deey mu koo dénk mu mu lekk am na am na fi walla amu fi fan la sekkere nekk léegi fan la sutura nekk léegi bu ko defee nag alquran rek ñu ci mën a dellusi si alquran moom nekk yamul jàkka ja alquran nañ bàyyi yëf yàlla ak yëfam génn suufam pétrole bi ñuy ñuy gëstu ba di ko gis or bi ñuy gëstu ba di ko gis phosphate bi ñuy gëstu ba di ko gis bu ñu posé woon ñoom ñu doon gëstu ba gis ko li ko fi indi danañ àgg ci yàlla waaye intérêt ba lañu ñu xool intérêt taxu ñoo jóg intérêt bi li yàlla wax naan yab na aadama xalaqtuka li nafsi wa xalaqtu kulla shay'in lak dama la bind pour sama bopp bind lépp pour yow bul yittewoo li ma bind pour yow yittewoo ma lépp topp la waaye maa asaf damay waxtaan ak shérif léegi nee naa alquran ku koy déglu yar yar yi day dal foo toll te yàlla kenn dàq koo xuloo nag léegi-léeg léegi-léeg nga yem ci aaya boo xam ne danga naan waaw kii man maa ko tax a jóg wala lu ko tax a jóg sunu borom subhanahu wa moo ñu bind jaam yi def ñu ay jaamam nit ñi bu ñu sëriñ ak taalibe ko yilif sëriñ ak taalibe ko yilif jataay sëriñ ak taalibe yilif sëriñ moo yilif bu taalibe amul bu sëriñ amul nahnu qasamna baynahum aichatahum fi lxayaati wa rafaana baadahum fawqa baadin li yettaxida baaduhum baadan aywa mu jeex tàkk kii maçon la kii architecte la kii borom xaalis la ku yilif ku yilif ah borom xaalis bi mënul mool mënul tabax mënul dessin ku yilif mason bi xaalis a ko tax a jóg architecte bi it xaalis a ko tax a jóg kon lu ñuy def ànd rek moo bu ñu àndul dara du sotti dara du ah dara du sotti wax mu bari waaye daal jot na jot na Sénégal jot na ci jullit yi ñu àndaat nekk benn li ñuy lii ñuy li ñu fal du askan lii tax ñu ñu tudd ñu ñëpp du askan si yoo Mbàkke yoo Xaydara yoo ñëpp ci bokk yam li ñuy tudd yàllaa ko moom waaw yàlla moo ko moom suturaal Seydina Muhammad lu ko yàlla wax ca yeddeel ga abasa wata lu ko andi ah wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha allahu lu ko andi ko defee nag alquran a daje Sénégal fii waroon na fees dell ak jullit ndax am na yoo xam ne bu wootee woon tey kenn du fi xaj kon nag nañu dellu siwaat dellu siwaat delloo siwaat senegal jikko yi wax ju bon ji wax ju ñaaw ji yii yëpp yëpp yëpp ñàkk ñàkk dégg ñàkk xam suñu bopp rek Sénégal dañu waxoon ni mooy pays mooy pays mais maintenant ah teesanteeg xastanteeg toroxalanteeg weerante yii yëpp fi nekk te dañu waxoon ni Sénégal mooy pays teraanga ah lu fi nekk dara nekk fi koo seen muy dem nga sosal ko bu defee nag alquran indi na lépp alquran indi na lépp boo demee ci suuratul laa tuqaddimu bayna yaday illaahi wara wattaqullaha inna allaha mu dem ba ca biir mu ne laa tarfau aswaatakum fawqa sawtin dem ba ca biir mu ne in jaakum fasiqun bi naba in fata mu dem ba ca biir boo ko toppee way taifataani boo ko toppee mu dem ba ca biir laa yasxar qawmun min qawmin asa boo ko toppee mu dem ba ca biir mbokk yi te lépp lépp nag ñu na yaa ayuha alladina amanu ku fi mas a julli ñaari ràkk naafila ah yow rek loo jàng jàngal fatiha nee na bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi waaw arrahmaani rahim waaw yàkkan iyaaka noo koy fire firil ma ko waaw wa iyaaka yàkkan ihdi yàkkan assalaamu aleyka ayuha nabi wa rahmatullahi wa assalaamu ndax séq nañ ko assalaamu lu muy firi jàmm aleyna ku ñu ko ñaan yàlla lañ ko ñaan waaye ndax ñun ñu ngi koy essayé di ko seq ñun ci sunu biir ñu ngi koy ñu ngi koy dox a ah, mbokk yi ñu ngi seq loolu ci sunu biir bu ñu nee assalaamu wa ala ibadillahi te koo gis waxoo ci moom dara doo ko jox loxo bu la dend yow ci ci sàppe sax nga moytu ngay génn julli gi looy wax asalaamaaleykum loo ci dese nga ko jox nga ko julli di toog te ñun ñi séq bismillahi rahmaani rahim te loolu amul ci sunu biir nga dem ba ci aaya la yaa ayuha alladina amanu li ma taquluuna kabura maqtan inda allahi an taqulu te yaa ayuha alladina ñi nekk ci daairatul imaani lay waxal bu defee nag yàlla ñu yàlla jàppale Sénégal daal war nañu taxawaat en tant que ay jullit déggoo ci sunu biir seet liy dugg si liy dugg si léegi dara baaxu ci téere boobu danaa fexe ba ba photo ci copie passe bi ma lay wax ni yónnee la ko ba ki nga gis ni dugal na un milliard yoo xam ni dóoroo la ci Afrique pour ñu lakk ay kaamil wallaahi téere ba mu nga ak man ba tey téere baa nga ak man ma yor loolu mënu fee jële waaye moom la ko la ko bégloo tey jàng ngeen bu yàggul rek alif lam mim zalikal kitaabu laa rayba fiihi hudan lil muttaqiina allazina luñ ca teg déedéet ah seetu leen ko ci whatsapp bi ah laa yuminuuna la wax alquran ñu ngi koy soppi te looloo ngi ci biir réew mi alladina laa yuminuuna bil xay bi la bind ah sërif addunaa ngi tukki am na fa mu dem ba ca biir benn baa ngi ci suuratul mulki benn baa ngi ci wab moom lañ yebbu taxi loo cee teg ñu dindi xayra bàyyi fa lislaam yi fa lañ yuqbala min kon lii lii rek la ñu bëgg alquran yi xale yi jëlaat ko ba nga xam ni bu lu ñëwati ëllëg dana fekk ñu pare pare suñu njaboot waxuñu kenn bul jàng école waxuñu kenn bul jàng nangam te école publique bi sax gaa yàq nañ ko ku amul doole mënoo cee dem fële ñu fa la bëgg yóbbu boo fa demoon ba gis dafa nekk doo fa yoon nangoo yóbbu sa doom fële ñuy yóbbu xale yi ñu tuddee leen école lu neex lu neex gaa ñi rekk fay xew lu leen neexul xewu fa defee nag lii ñun ñëpp leen war a wëlbatiku jàppale leen jàppale njaboot gi nga xam dañoo bàyyi seen lépp pour njaboot gi dem bu loolu amul rek daanaka dara du am dara du am boo nee hablana min azwajina wa zurriyatina loo ci bëgg wajaalna lil muttaqina habli min ladunka la bu ko def mu tax ah yooyu loolu lañ ci bëgg lu yi rek lañ ci bëgg habli minas saalihiina ko defee nag yàlla nañu yàlla boole jàppale mbokk yi dama bari wax trop moo tax maa ngi jégg doo ñu sarax doo ñu sarax rek xasida maam borom Tuubaa boobu sarax ñu ko rek ndax ñu jëriñoo ko sarax ñu ko rek ci barke dana ko waxaat insha allahu taala moom bu ngeen demee ci uh, axiru zaman jàngkat yépp nañ ci dem nañuy dellu ci marjaaw mag ñi ñoom di xam réew mi dafa toog xam nga dafa am loo xam ni mag ji bu ñu ko daan séq ak ñu mel ni toog bu ñu toogaan ci biir nit ñi bu mag mu sa toog ci biir ñi ba siyàgg nga gis mu yëngal bopp mag ñi lu ñu génn te leeralu lañ leen lu tax ñu yëngal bopp gara jox nañu respecté nañu mag ñi def lañu lépp waaye bu ñu gisee ku yëngal bopp ci seen kanam danañ ko laaj lu ko waral lu ñu ko laajee góor gi lu ko waral fekk mu nga ca njaareem toog lu ko waral mu ne Sénégal dafa yàqu ndax mooy yàlla gi bari na ca booba avant 1927 ku mu fi fekk ci àdduna ah ku mu fi fekk ci àdduna ci jataay bi ah? ah booba la jamono yàqu woon te booba gis naa benn document boo xam ni dañ ko yuutoon xaalis moom def ko ci benn kees mu teg kees yi fañ ko ko tegoon fa la ko teg ci néegam laalul kees gi ba ña ko joxoon ñëw fekkaat kees gi même place bougé wul fi ko tegoon ñu jël kees gi yóbbu ko def nii pour pourquoi lekk ko pourquoi jox ko njabootam pour quoi jox ko taalibeem nit ki li mu bañal boppam bu ko bañalul taalibeem du nit li nga bëggal sa bopp boo ko bëggalul sa taalibe doo nit moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko ni jotalal waaye moomoo nit ñi ah, boo demee ba ci biir sa bu ne wa ida saalaka ibadi fa inni ujibu daai tax warul ñaanal leen ko defee mbokk yi bu fi toppee lu ci wax la wax la joo xam na ji lu fi jóg ñu delloo si kersa it kersa nag amatul senegal te kersa fu mu amul dara nekkatu kersa moom dara amatu wala gis ngeen fu kersa def ajjule bi damay laaj est-ce que gis ngeen fu kersa amati ci Sénégal kersa fan ngeen ko fekk léegi ah ah imaam foo gis kersa léegi ah ah te kersa ak liimaan ñoo waaw bu bu ci dem kon lu fi des ah lu fi des bu kersa demee yóbbaale ngëm yàlla bu ngëm yàlla demee yóbbaale kersa kon lu fi des ah mbokk yi man de maa ngi laaj waaye dama bëggoon ku ma tontu waxtaan wi balay neex ñuy tontonte ci biir lu fi des lu fi des bu ngëm yàlla demee yóbbaale kersa bu kersa demee yóbbaale fan ngeen gisati kersa ci senegal ci ban kër ngeen ko fekkati léegi bu ngeen delloo ci xaw ma net bi la xaw ma lu ngeen koy tuddee ngeen gis dafay génn. ko defee nag te alquran rek fi nekk mbokk yi alquran nañ ci téye même buñ ñu ko atteelul nañ ci téye nit day gëm yàlla benn yoon waaye du gëm yàlla ñaari yoon baax na Chérif <laughs> baax na salaamaaleykum salaamaaleykum imaam dana dellu si waxtaan ak yéen waaye bu ngeen dajatee rek fexe leen ba xam laa ilaha illa allah lu muy tekki hmm, fi kañ soxna rek a fi nekk laa ilaha illa allah shérif lu muy tekki laa ilaha déet déet benn buur bu ñuy jàmm bu yeyoo jaamu jaamu ga di jëriñ ka koy jaamu ñàkk gaa jaamu di lor ca ka ko ñàkk jaamu illa allah ku dut buur yàlla waaw ku ko fi mas a def téeméeri yoon téeméer téeméeri laa ilaha illa ku ko fi mas a def dana indi xaalis bu fekkee am na ku ko fi mas def téeméeri laa ilaha illallah wérdu téeméeri laa ilaha illallah kon laa ilaha illallah téeméer la ah junni kon yàlla junni la kon yàlla est yàlla junni la laa laa mumiita aw yoon la xal la laa laa muhyiya yoon la laa raziqa yoon la laa xaakima amul benn laa ilaha illa booy wax mu jàll beneen ñëw di bokk ak moom la muy dox amul laa ilaha illa allah boo ko doon def téeméeri yoon waaw waaye téeméeri laa ilaha illa mënul nekk téeméeri yoon yoon bu ñëw uuteeg ba ca des sunu borom moo toll noonu ci àdduna moo tax ki ne laa ilaha illallah ba pare dem di attewoo leneen lu dul laa ilaha illallah foo ko teg te ñun lu ñu gëm ñun Sénégal lu ñuy attewoo ah est-ce kon ñoo bokk bokk nañ ci de damay laaj ndax bokk nañ ci sërif xaw nañ cee génn de. ko <laughs> defee nag yàlla ñu yàlla jàppale bugguma woon a wax sax bugguma woon toog waaye ci dëgg-dëgg. lii dafa jekk lool te gisoo fi benn benn ñëpp personnalité lañu waaye ñi yittewoo li tax gisoo leen fi te bu lii amul rek mbokk yi dara dootu fi nekk dara doot kenn mënu la fexe ba dara di fi nekk inna hada alquran yahdi lillati wa yubashir almuminina alladina yamaluuna as yamaluuna la wax hunaka amal hunaka iman alfarqu bayna alimaani walamal wa sidq walqawl wa sidq dafa wuute bu ko defee nag yàlla ñu yàlla jàppale Sénégal daal ñu ñaan ñu ñaan ñëpp ñu téyewaat seen njaboot tegaat leen ci yoon lu may loolu ëllëg ëllëg ëllëg dana metti trop topp yàlla ba ëllëg nga dem ci kanamu yàlla nga dem bay dem ñu ne la waqifuhum luñ ca teg ci lan bu ko defee nag yàlla ñu yàlla jàppale euh, waxuñu ngeen xañ xale yi àdduna àdduna kenn mënu ko xañ kenn dama dugg ci ci wanag tuur ndox toog fa la ma lislaam sant raxasu ba pare génn jàpp ndax mën naa julli aha la may lekk bu lewul nag ah mais li ngay lekk bu lewul nag wala tayamamul xabisa minhu tunfiquuna wa lastum bi axidihi illa an tuxmilu waalamu anna allaha ganiyun xamid alcheytaanu yacidukumul wa yaamurukum bil wallahu yaidukum magfiratan minhu wa fadlan wallahu bu ko defee nag mbokk yi alquran daf ñoo yee totalement amul kenn ku réer léegi xanaa def li la neex def li la neex rek fi nekk Sénégal nag melul woon nii Sénégal dafa ruusoon yàlla xam nga yàlla dañ koy rus ku rusul yàlla du la rus da ngay rus yàlla rus sa bopp rus nit ñi waaye rusoo yàlla rusoo kenn koo bëgg mu rus la ñu dellu siwaat waxuma ngeen toroxal kenn waxuma ngeen xas kenn waaye ñu nañu vérifié waat suñu bopp ndax ñu ne wala déet la seen xaaji Muhammad boo ngi ko toppee wax ñu duñ fi jóg mbokk yi seen xaaji Mansour daf ni waxaasibi nafsa fi dunya muhaasabatan qabla alqiyamati tarba duna xusraani dama ah, kii borom biti ku fiy jaay ci yéen kenn ah am na ñu fi jaay boo tijjee sa bitig nooy def ah boo tijjee sa bitig suba teel boo tijjee sa bitig nooy def ah balaa client ñëw dinga xool sa li nga leble woon yëpp nga xool ko ubbi sa turwaal soog di commencé jaay boo jaayee ba midi nga. boo demee bay tëdd nga lu tax du ñu def noonu suñu dund nit day inventer dundam seet li mu moom mu jël ko seet li mu moomul mu delloo ko ba lay ëllëg waaye naan yàlla baax na ba kañ nañ inventer suñu bopp kenn ku nekk xool lan mooy jullit nga teg lan mooy imaan nga teg lan mooy islaam nga teg xool ci ñett yi ban nga ci bokk waaye jullu ci lislaam rek taxul nekk jullit taxul nekk jullit jullit da koy nangu seet li yàlla bëgg nga def ko li mu bañ nga bàyyi ko waaye bëgg ni sëriñ bi moom moo la yóbbu aljana te sëriñ bi xamagul fu mu jëm wóorul di ban sëriñ moo la mën a garantil ni naa la fekk béréb sànga wala bu ma demee fekk mu béréb sànga am na kon boo dee dem tey France te amuloo argent de poche di nga dem doo dem kon booy dem ci bàmmeel ba bala laa wóor ëllëg yóbbaale loo nekk ci bàmmeel yóbbaale loo nekk ci bàmmeel ko defee nag ma tëj kuf lu tax ñuy lekk ah ñi lekk ngi dee wala ñi lekk deewuñu ñu ngi dee mais lu tax ñuy lekk ah ah nga wér ñi lekk di feebar lekk gi dafa am lu ci nekk lu ngeen di tuddee ferñeent waaw bu fekkee ferñeent amul ci lekk gi di boo ko lekkee di nga wér doo wér ku la ba max waaye bu fekkee am na ferñeent boo ko lekkee ba mu dem ci sa biir deret ji jël la mu moom ci ferñeent ya yàpp yu jël ko derbeeg yëpp jël ba pare yax yi jël la ci des day nekk dese génn loolu tax ñuy lekk mais lu tax ñuy julli ah ah jaamu lekk yi jaamu yàlla la weer bi lan la kulu kulu lan la ban verbe la ah impératif la ndigal la kon lekkal lekk nga ngay lekk boo ci yéenee jaamu yàlla am ci li ngay am ci julli boo ko lekkee ba pare nag la ca la ca war a dem ci biir bi dem ci la ca war a dem lépp génn mais léegi ñu ngi julli mais lu tax ñuy julli inna salaata anil wal ñiy julli ñu mel ah, damay laajte ni man rek bon lool ñuy julli ni ñu mel mbokk yi nañuy waxtaan rek ñiy julli tey fees jàkk yi dell génn ak seen comportement nu mu mel inna salaata tanha fahshaai wal munkar aqimi salaata tarafayi nahaari wa zulafan min alleyli inna alxasanaati yudhibna te sayyi'aat yooyu fees dell ci julli di bokk yi wasalaamaaleykum Serigne Baal ma daal. waaw kiy jël tariqa bi kiy jël tariqa bi mu ne pour nga jox ko. <laughs> sëriñ Mbaye sëriñ bay du yàlla te du mës nekk yàlla kenn ku nekk ci ñun xam nga sa bopp boo demee ba tëdd ba guddi nga ni bërit wàcc salal dem jàpp njàpp mu sell ñëw julli sa ñaari ràkk yaa ngi fekk borom baa ngi naan hal min saailin hal min mustaghfirin waaw lépp loo mës a def ci lu bon nga seq ko yàlla tuub ko lépp loo am ci soxla bala ngay tàllal loxo kenn tàllal ko yàlla ba pare yàllaay faj aajo yi waaye kenn fajul aajo yi nit nag wërsëg da dana jaar ci moom bu ci gisee boppam tooñ tooñ ko dafa jaar ci moom bu doon wërsëg ma daf koy jëfandikoo al al risque dañuy wax ni man tufia bi wërsëg mooy la nga jëriñoo mais li nga joxe yëfi jàmbur la bu ko defee nag ñuy tuub ñuy tuubal sunu borom subhaanahu wa jot na Sénégal delluwaat ci jikkoy mag ñi mag ñi lañu nekkee woon bu baaxul dara du baax njëggaani mii ñuy njëggaani di ko indi yàq na sunu lépp te bu ci bu fi jógul day gën di yàqu lii ñu njëggaani indi bu fi jógul day gën di yàqu day gën dem leen ci ci ci ci ayatil alquran boo ci demee yàlla wax nañu lépp yàlla wax nañu lépp yàlla wax nañu lépp yàlla ñu yàlla jàppale nag alquran ji rekk ko waral Euh, te lii ñu war ci jàpp nag fii bu toll nii waa koñ bi kenn ku ci nekk waroon nga tey liggéey waroon nga àllal ba wala bokk weer wu dee nga jël defal yàlla ci ci daara ji weer wu nekk rek lu ci waayu mën na seet boppam bu mu tax sama wax ji nag bu mu tax ya ngay calculer sa bopp ba pare li nga mën sans jàkka ji sans daara ji taxaw di la laaj li nga mën nga di ko jël di ko def ci keesu daara ji ñu di ci dund bu doon wërsëg ma daf koy jëfandikoo al al risque dañuy wax ni man tufiya bi wërsëg mooy la nga jëriñoo mais li nga joxe yëfi jàmbur la bu ko defee nag ñuy tuub ñuy tuubal sunu borom subhaanahu wa jot na Sénégal delluwaat ci jikkoy mag ñi mag ñi la ñu nekkee woon bu baaxul dara du baax. njëggaani mii ñuy njëggaani di ko indi yàq na sunu lépp te bu ci bu fi jógul day gën di yàqu lii ñu jëggaani indi bu fi jógul day gën di yàqu day gën di dem leen ci ci ci ci ayatil alquran boo ci demee yàlla wax lañu lépp yàlla wax lañu lépp yàlla wax nañu lépp yàlla ñu yàlla jàppale nag alquran ji rekk ko waral euh, te lii ñu war ci jàpp nag fii bu toll nii waa koñ bi kenn ku ci nekk waroon nga tey liggéey waroon nga àllarba wala boog weer wu dee nga jël defal yàlla ci ci daara ji weer wu nekk rek lu ci waayu mën na seet boppam bu mu tax sama wax ji nag bu mu tax ya ngay calculer sa bopp ba pare li nga mën sans jàkka ji sans daara ji taxaw di la laaj li nga mën nga di ko jël di ko def ci keesu daara ji ñu di ci dund ah di ci faj xale yi yooyu ñoom waxuñu ma ko mën naa ko wax waaw alladina yut'imuna nu mu tuddati dama yàkkamti de te alquran kenn du ko yàkkamti ah ah ah addila wallahi boo amul addila loo wax duñ ko gëm waaye addila bu ne fàng moom xanaa dégg démb damay waxtaan ak ay xale ma ne na fexe ba ku ci jàng benn waqfu benn waqaf wala boog benn xisib nga am tafsir yër ko di ko xool bu tafsiru fiq bi na fi nekk tafsiru taarix ak euh, histoire na fi nekk bi jëm ci wàllu science na fi ñekk bi jëm ci wàllu littérature ngeen fexe ba am yooyu di ko teg ci seen kanam bu ngeen paree def na résumé dajale ci lépp yemb ci seen bopp ndax da ngeen toll ci jamono boo xam loo wax ñun la fiq la waaw kii jàng te téere bi nga xam ne bi mooy fiq bi mooy ban téere ci tafsir yi ah defe naa bi moo ëpp lu muy wax ci ci fiq waaw noonu rek alquran boo ko bëggee dégg dëgg dëgg da ngay fexe ba tafsir yi nga am ko boo jàngee waqaf benn waqaf di nga continuer waqaf bi mais fexeel ba liir ko ci tafsir yi teg waaw am na tafsir yoo xam dafa résumé am na tafsir yoo xam dafa yaatal ko defee nag ngeen mën a dégg alquran bu baax a baax alquran alquran ku ko fi bàyyi doo dem ko defee nag yàlla ñu yàlla boole jàppale alladi yut'imuuna taama ala mis waya wa innama nut'imukum laa nuridu minkum wala inna naxaafu yawman qamta fa waqaahumullahu sharra mu jeex tàkk li rekk a tax ma ne nañ jàppale ñii ci daara ji jàpp jàppalewu leen kii jàppalewu leen xale yi seen bopp ngeen di jàppale seen bopp ngeen di jàppale yaa Serif ñaanal yi yal na yàlla nangu lépp sartu tariqat yi nag li tariqati laa li cheikhi am nañu ñuy dal ci kaw tariqa waaye almuraadu bi tariqati huwa al ishtigaalu bi maqtadatu shariatu wal xaqiqa loolu mooy tariqa waaye tariqa jëluñu ko rek ni sëriñ bi ko formé déedéet aqimi salaata lu ci indi ñeenti rakka damay laaj indi na indi na ñaari rakk indi na juróom lu ko ci indi adé ah, damay laaj fadkurullaha ah faalamu annahu laa ilaha wastaghfir istaghfiru innahu kaana aywa inna allaha wa yusalluuna yaa ayyuha alladina bu nekkee bidaa kon luy lu des nañ ko jël rek te yàlla tax tariqa nag li mu namm mooy istixaala bi maqtaratu shariatu wal xaqiqa mbokk yi def ñaan bu ñu joxee tariqa bi ba pare shérif jox ñaan ngeen baal ma nag ci wax ji wax ah. ngeen baal ma ci wax ji bu dee man ngeen di déglu bu ngeen demee na ngeen ko seetaat bu baax alladina yastamiuuna lu tax waxul alqaila lu tax waxuñu ñay déglu kay wax dañuy wax ñi ñañ déglu la ñuy wax fa na kon am na lu ca nekk fexe ko dindi xàmmee ko yàlla ñu yàlla jàppale ko sëriñ doxal ñaan joxel ñaan ma joxe tariqa bi maa ngi ko jox nii sëriñ dimbali ma rek joxel ñaan joxel ñaan maa ngi ko koy kon ci ndëgëru sëriñ bi balaa ñuy ñaan déedéet dafa am lu luñ daan def at bu jot te xam naa ne bu sëriñ bu jógee ñi sant kunte yëpp danañ ko ba te mooy jëm ci li sëriñ bi doon wax rek dafa am loo xam ne at bu jot dañ ko fiy def sëriñ mooy laajal daara ji hmm? waaw buñ laajee rek ñaan sëriñ bi ñu julli dañ ko daan def at bu jot ah man mii maa ko daan laaj comme maa ko daan laaj nag tey sama sëriñ a ngi toog bu joxee ndigal kuy libal kuy lebal yàlla waxuñu kuy lebal shérif waxuñu kuy lebal cheikh waxuñu kuy lebal xale yi kuy lebal yàlla la ñu wax ku koy lebal rek ñëwal andi bu kenn laaj nag jaare fa dem. man nag dama daan wax ne ku ci am fulla looy génnee jaayanteel ak yàlla waa tegal fii da ko naan yàlla mayuma la saraxuma la lebaluma la ndax yaa ma ëppale dama laa lebal te nag ma fay. te fii laa bëgg nga fay ma ba ma doyal bu ma ñëwee ci yow ëllëg nga fay ma ba ma doyal dangay wax ak yàlla li nga bëgg. boobu question sax la la posé man dal ladi yuqridu llaha qardan fa yudaa'ifahu lahu adaafan eh, sëriñ eh, ma profito ci pour pour ñii joxe laa wax pour ngeen xam ne joxe du caaxaan sëriñ Saliou Sarr benn moo ma ko nettali ci gémmiñam di jarbaatu sëriñ Babacar si sa turandoo di sa wayjur mu ne dafa daan dencal sëriñ Babacar sa turandoo xaalisam mu ne am pàkk yuñ ko bëggoon a jaay waaye ñemewu ko jënd ndax bañ rek bu ko jëndee ñu ne ci xaalisu sëriñ Babacar la ko jënd mu ne ba sëriñ Babacar génn àddina amul kër mu ñëw Medina fii luye mu ne mu metti lool léeg mu fay léeg du fay nee na ma toog ba mu yàgg rek doom mu ne mankat maa ngi bëgg a ñàkk fayda ndax sëriñ Babacar moo ma xañ kër naa dem Tiwaawan wax ko ne ko na ma fay kër nee na mat dugg oto rek jubali Tiwaawan ñëw ba ca rawdu ba mu ne ma ma dara doom dama ñëw rek sukk ne ko si yaa ma xañ kër fay ma kër nee na duggaat sama oto ñibbisi nee na ca ëllëg sa sëriñ Pape Malick mii di rakku sëriñ Cheikh Tidiane si al Maktoum nee na ñëw nuyoon ne ko sëriñ bi day moo ma yebal sëriñ Cheikh moo ma yebal mu ne dafa gis way juram bi sëriñ Babacar si mu ne na la jëndal kër mu lay laaj foo bëgg mu jëndal la kër mu ne te boobu daayira waalo waalo yaa ngi toog indi xaalis bu takku ne ko daal dañ ñëwoon yëg ne am lu san lay sonal ñu bëgg laa tabaxal kër mu ne kon woo leen waalo waalo yi mu woo waalo waalo yi ak Pape Malick ñu toog sëñ Pape malik nee na waalo waalo yi ne ko déedéet kër gi daal ñoo ko yéene woon ñoo koy tabax mu ne waaye Serigne Cheikh nee na bu ci dërëmu kenn dem ñu ne ko ah, boo demee ne Cheikh na téye dërëmam ñun ñooy tabax kër gi nee na bi coow li bare nag mu ne sëñ Saaliwu ne leen kon nañ def nii yéen waalo waalo yi nekk leen ay maneeba xaalis bi Serigne Cheikh joxe ñu tabaxee ko kër gi mu ne ci la tabax këram gi ba mu yegg kon nag. kuy lebal dagay ngay lebal yàlla man za lazi yuqridu llaha qardan xasanan fa yudaaifu lahu adaafan kathiran kon liñ daan def at bu jot ci ndigalu sëriñ bi nag lañ ko def ren kon war naa mën a gën a bari bu ngeen ko def def leen ko te yàlla tax bu leen ko def mukk ci sama ndigal yàlla soxla yàlla tàllal loxo man da alladi yuqridu llaha la yàlla wax tàllal loxoom ni képp ku may lebal ma fay la kon du sëriñ bay du sërif du imam du xale kuy liggéeyal liggéeyalal yàlla fa tabaarakallaahu ku ci am rek te mën ko def te yàlla tax génne ko kii kii ñu dénk xaalis mu am soxla fajte soxla ba te tàggoowul delloo fa xaalis kooku lu mu doon xanaa ku jubadi <laughs> moo tax mbokk yi góorgóorlu nañ góorgóorlu ñu ñëpp nañ góorgóorlu daa du ma ni aw ma dara rek naa ko iñaane ñëpp ñëpp yam ci déedéet nañ leen taxaw bu baax surtout xale yi surtout xale yi suñu yaakaar yëpp a ngi ci yéen suñu yaakaar yaakaar yàlla yëpp a ngi ci yéen ëllëg yéene taxawul diine ji ñun dem nañu ba pare am na ñoo xam dañu waxoon ni annee yakunu lahu lmulku alayna wa nahnu axaqu bilmulki minhu walam yutasaata min almaal qaala inna allaha astafahu alaykum wa zaadahu bastatan fil wal mu jeex tàkk xam-xam a ngi fi doolee ngi fi bu yëngoo mu sotti kon yéen la ñuy yaakaar xale yi defaraat leen seen comportement xoolaat leen seen bopp bu baax a baax siggil yàlla siggil Seydina Muhammad waaw siggil leen yonent bi jot na benn na yonent bi dafa sigg dafa sëgg léegi ndax gàcce gu mu am ci njaboot nee na yonent bi dafa sëgg sëgg léegi dafa sëgg sëgg sëgg ko nag amuñu kenn ku dul yéen Sénégal amul kenn ku dul yéen ñun amuñu fenn fu ñu jëm alaaji maarigo ñëpp ñëpp ñu ngi am ci yéen yaakaar yéen a leen war a wuutu dañ wax ni tilka asaaruna tadullu alayna fanzuru baadana ilal ilal asaar yi ñu ne dëkk xoolal xale ya nu mel noonu mooy adresse su mag ñi imaam d'accord nga imaam lay laaj ah <laughs> waaye ñu yàlla jàppale tàllal leen nag indi acca indi leen waaw man de dugal naa ci cinquante mille acca xanaa bu ma yelwaanee cinquante mille dugal ci gaa yi danañ Chérif Niang bismillah na ñëw ah. Serigne Mbaye nee day jóg laajal boppam de indi leen ñi ci gannaaw nañ indi li ñuy laaj nag. waaw kay waaw kañ Isa Tajalle Chérif Niang waaw kañ ah, baax na waaw Chérif amiin amiin ak yeneen yu mu fa def tabaarakallah loolu nag yàgg na ci du tey rek te daf koy def saa mu yëgal ko kenn waaye nag yàlla moom ku mu weer nga weeru tabaarakallaahu yàlla na ko yàlla musal sama làmmiñ nag yàlla lafal ko cat ak lépp waaye yàgg na ñëw na Tiwaawan ay yooni yoon jàppale fa ay nit ba wutal fa boppam kër sax wane ni bëgg na Tiwaawan te loolu yëpp mu def ko fa di jàppale miskin ya fa nekk nag tabaarakallaahu yàlla na ko yàlla fay yàlla wuutu yàlla wuutu ko ci boppam fayal ko ci barke Seydina Muhammad bi ma gisee xale yu jigéen yi di tari sama xel dafa dem ci la Seydina Muhammad waxoon wax ko ci Aïcha daf ni fas an euh, nu mu tudd fas anu nu mu tuddati sax waaw xudu nisfa diinakum min hadil waaw bi ma gisee xale yi di tay ci loolu la sama xel dem moo tax jigéen dañu nit ñe nit ñee defarit lislaam dafa doyadal jigéen waaye lislaam musta doyadal jigéen jigéen daj na lu nekk avant l'islam di ñëw France gi nga xam ni ñooñu yilif ñoo ñooñu yilifoon wala ñooñu yilif ba tey question la de ñooñu yilifoon wala ñooñu yilif ba tey. ñooñu yilifoon ñooñu yilifaat ba tey rek. ñun amuñu leen de. pendant. wala am nañ ko. am nañ ko ci tur de. waaye ci ci jëf lislaam dafa mës di teral jigéen boo demee ca alquran bari na boo ne inna allaha boo demee ca qaalat wa qaalat imraatu imrana rabbi inni nadartu laka maa fi batni muharrara mu dem ba ca biir fa taqabalaha rabbuha bi qaboolin wa ambataha nabatan wa kafalaha kullama daxala alayha zakariya almihraba qaala nu mu ko waxeeti Mariam yaay jaa ngi tuddoon nu mu tudd yaayu Mariam nu mu tudd ah ah, ah am na nu mu tudd am na nu mu tudd am na tur xanna xannatu waaw xam nga jullit yi bu leen bu leen ñàkk gëstu cay dëgg dëgg xannatu xannatu waaw man xale yi laa bëgg ngeen gëstu bu baax gëstu leen gëstu leen mën a def fas li leen contre ah wa aitu lahum mastataatum min wa min ribatil xayli turhibuuna bihi aduwallahi wa aduwakum ci lay song te xamoo armam boo yéex mu di la duma moo tax fexe leen a jàng jàng téere yëpp bu leen bàyyi benn téere même Serif baax na <laughs> toppee wax ji lu ma fi jóge yàlla ñu yàlla jàppale moom moomu bi nga xamee ni kër gi mu ngi woon ci ay at moom it mu toll ci at ba mu ne ko inni nadartu laka maa fi batni muharrara waaw mu ñaan ba yàlla jur ko mu jur ko mu ne ko wadaatuha unsa wa laysa dakarukal wa inni sammaytuha wa inni uiduha bika wa zuriyataha min alcheytaani waaye fa taqabalaha rabbuha bi qabulin xasani mu dem ba ca biir mu dénk ko zakariya yont yàlla Zakariya di def waxtu wu duggee ci Maryam rek fekk fa lu wuuteeg la mu bàyyi woon foofu mu ëkku ëkku gisul dara mu dellu si fekk fa lu raw la mu amoon mu ne ko yaa Maryamu annee laki haada qaalat huwa min indillahi inna allaha yarzuqu man yashaau bi gayri xisaabin qaalat huwa min indillahi inna allaha yarzuqu man góor ak jigéen ñëpp a ngi si wax ju rëy la ca la Zakariya ñaane moom it ba am Yaxya waaye boo ko toppee l'islam al ummu madrasa ida aadattaha aadatta chaaban tayib al araqi ndey école la l'islam nag waxul bu jigéen liggéey waaye am na responsabilité boo xam ne moom la ko yàlla di laaj kër gi kër gi yàlla nga koy laaj jigéen waaye nag Cherif boo boo toppee damay damay damay dugg ci leneen lu tax ñu fekk ku taxaw comme saa nga fekk man lu ma doon góor ñu ne ma góor góorlu lu tax lu ma doon ñu ñëw fekk ma ak sama lépp ma taxaw ñu ne ma góor góorlul dama déggul wolof moo tax may laaj ndax loolu wax la wala déet lu tax duñu wax jigéen jigéen jigéen lul góor ñu ne ko góor góor lu mu doon sërif sarax ñu ko rek may ñu ko rek. takkusaan jot na. may ñu boobu rek boobu sarax ñu boobu rek. ba mu paasee incha allah dellu si waat sarax ba rek. am mu ngi nii liñ laaj yépp a ngi noonu. ñu lépp ñëw na waaw. moo tax aljannatu. lu tax defuñu ko ci ambiya yi defuñu ko ci ulama def ko ci taxta am bi <laughs> yal na leen yàlla taxawu. jigéen ñi yàlla leen yàlla fay yàlla na yàlla dolli seen sutura lu ñu leen bañ lu leen nit sant lu leen nit mën a sant ak ku mu doon te dëppoowul ak la yàlla bëgg rek bàyyi leen ko yàlla jox na leen cër bu rëy a rëy leen cër bu rëy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla mënoon na koo bind directement waaye jigéen a sukk jur ko moo tax ndey kenn mënu ko fay kenn mënu ko fay yàlla rek moo ko mën a fay yàlla na leen yàlla taxaw nag. te it ah. taxaw conférence bi taxaw ba ci mbedd mi xam nga euh, Chérif Chérif daal ñun ñu ngi <laughs> malgré ñu ëpp qalbuhu wallahu bima ta'maluna alim لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء يعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا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 واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حسبك kon Mouhamed ñu jox Serigne Babacar mu jàll ak yow ci sa ñaareelu laaj. macha allah Mouhamed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أريكم قوما تجهلون بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أريكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين حسبك ñu Muhammad pare góor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 الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مدغة فخلقنا المدغة عظاما فخلقنا المدغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين حسبك وصدق الله العظيم صدق الله العظيم ما شاء الله يلا يلا بركل yaa mën sa yaay de loolu moom leer na ma nañ macha allah yàlla yàlla barke def la mag bu baax a baax kon duñ def lu dul euh, continuer ci xale yi rek jox Abdoul Aziz mu woo ñeneen ñi si topp macha allah yal na yàlla barkeel alquran gi yal na ci xam-xam topp yàlla def la magul islam magu diine xale yi di tari kenn ki mi ngi tudd Mouhamed Meng di doom ci Dame Meng wa soxna Xawa Meng dëkk HLM Grand Yoff beneen xale bi mi ngi tudd Ali Cissé di doom ci Abdullahi Cissé wa soxna Kumba Sakin dëkk site Fadia beneen xale bi mu ngi tudd Cheikh Tidiane Silla di doom ci Baar Alxaaji Baara Silla wa soxna maryam Touré dëkk Arafat bismillah بالله من الشيطان الرجيم ولو شاء